waaw uh, maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax voilà donc dama ñëw pour am ay leeral yu ndaw rek yoo xam ne moom la ñuy indi ci waxtaan yi comme niñ koy defee toujours voilà ginnaaw bi ngeen gisee fan yi comme niñ koy waxee ngeen gis uh, c'est minable sortir nuit et jour matin et parce que képp kuy bàyyi xel te sa xel di dox xam nga ne Sénégal fi mu toll nii mi ngi ci guddi gu bër setagul voilà donc loolu nag boo ko déggee dañ leen bëgg wax rek ne ñoom xamuñu ne ñun liñ leen jiitoo bari na lool liñ leen jiitoo liñ leen jiitoo bari na lool euh, tey nag bu ñu xoolee ñun euh, awa what are you waiting bu ñu xoolee li nga xam ne moom moo nekk di xew tey ci Sénégal dañuy xam ne on est dans de sérieux problèmes ils sont na na na rectifier ils sont dans de sérieux problèmes Des sénégalais nak lay waxal lu sénégalais ci gëndé de qui ci pour man waye mo ci gëna jafé waxal dama bëgg patriote continuer massifier à un moment donné suñu adversaires yi xoj nañ leen fi ñu bëgg parce que imaginez c'est pas nous qui discutons de reportage d'élection fan ngeen déggee patriote wala usman Sonko wala ku mu àndal wala képp ku ànd ak opposition bi te dëgër ci ñuy wax ay mbirum reportage d'élection vous savez que Macky Sall amna na len passé il n'est plus au valant xam nga nenañ len Macky Sall même renoncer à la troisième candidature ce n'était pas sa décision du décision Macky Sall de même manière que nekul décision Macky Sall ñom ñola la wax de Souleymane Gil Diop dégg ngeen ko mu ne Macky sàll moom bi mu toogee wax ak moom Macky Sall daf ko ne day reporter du du reporter calendrier républicain bi loolu Souleymane Jules Diop moo ko wax. ba mu paree mu abal comédien bi Cheikh Yérim Seck kooku tamit ñëw tey confirmer waat li nga xam ne moom la Souleymane Jules Diop wax ba léegi nag ñoom ñu jàpp benn kàddu bi ñu ne leen ah mais toujours sénégalais yi ñoo soxla pour li am. le général Moussa Fall damay ñëwaat encore ma wax sénégalais yi dara te dama la am loo xam ne dinaa leen ko jox sax te defe naa xam ngeen ko ñu bari ci yéen am na lu ñu xam ak lu ñu xamul bu leen fàtte ne rapportu gendarmerie da ngeen may déglu da ngeen may déglu bu baax ma wax rapport interne bu gendarmerie bu Sénégal bi ñu defee investigation ñoom bi ñu defee seeni enquête interne de la gendarmerie rapport ba fa génnoon rapport bi ba léegi doomu aadama tegaku ko ko bët sénégalais yi li ngeen di yaakaar ne moom ngeen yor c'est pas ça loolu du rapport interne de la gendarmerie rapport interne gendarmerie bi ba léegi génnul ci biti keroog biñ ko tegee ci loxo Macky Sall ne waxoon nañ leen ne Macky Sall dafa ne ba mu ko liiree tiitaange ba mu tiit dafa ne j'espère que c'est la seule copie comme maanaam dafa espérer ne c'est la seule copie bi am dama leen di wax de dégluwaat leen encore dama koy répéter pour ngeen dégg yéen ñi déggul rapport interne gendarmerie bu dangereux bi nga xam ne dafa chargé Moussa Fall déglu leen ma de dama leen di jox ay ay tuuti firnde ci biir tuuti match matchaat laa leen di jox ci biir rapport interne gendarmerie bi dafa chargé Moussa ba boole ko ci mbiru Adji Sarr est-ce que may déglu bu baax rapport boobu dama leen di wax dama leen di jox d'abord firnde bis boo leen gisee rapport wut leen ci ñaari tur yii déglu leen ma bu baax Crépin Sambou ak Oumar juuf déglu leen ma rapport boo leen gis ay feeg muy doxantu muy tàmbaambalu muy yéeg ak a wàcc wut leen ci ñaari tur yii ñaari tur yii ñooy enquêteurs yi Crépin Sambou ak Oumar Diouf déglu len li ma wax koy dégg bu baax le gisul turu Crépin Sambou ak Oumar Diouf du rapport bu rapport bobu. bis bu Sénégal day toj préparé il faut vous préparer parce que ñoom li ngeen di dégg ñuy layam layame di dof dof lu di di ba léegi am na lu ñu fàtte fàtte nañu ne rapport bi génn fàttewuñu de Moussa faal moom xam na ne rapport bi génnul am na ay journaliste yu xam ne rapport bi génnul ñoom xam nañu parce que rapport bi liñ leen di génneel noonu bi ñu defee enquête Ousmane Sonko ak enquête Adji Sarr rapport yooyu ñu leen di génneel naan leen déedéet ba léegi fàttaleku leen li ma leen di wax de rapportu interne gendarmerie bi masta génn génnul ci biti ken musu ko musu ñu ko ken musu ko tek bet ko dul Macky Sall ak Moussa Fall amna journaliste bu ci deg bu ci forwe yu bey ba ñuy genn di contre feu nan len wala rapport bi amul dama len di joxat benen firnde xam nga détail la len jox ni neena len tour yi japp len tour yi xam nga ñom ku ñu ray Fulbert Sambou lañu ray ak DJ Badji mais rapport interne gendarmerie bi ñaari nit ñoko def Crépin Sambou la ak Omar Diouf donc tant que gisu leen tur yii déggu leen tur yii dem leen tëddi nelaw ñoom xam nañu ne rapport bi génnul te rapport bi bis bu génnee di ngeen ma waxaat di ngeen ñëwaat ngeen confirmer waat ngeen ne masiba naaru laay am na parce que rapport bi chargé na leen chargé boo xam ne ba ci Moussa Fall bii ngeen di gis moo tax ngeen daan dégg président Ousmane Sonko toujours mu leen di ne Moussa Fall ci boppam loxoom dafa bokk ci complot gis nga Moussa Fall mii moo jàpp Sénégal en notage guddi yi may wax ak yéen Sénégal mi ngi ci guddi gu bër setagul waa ji sekk ak ñoomin seen xam nga temps yi yëpp ñu ngi leen di wax ñu ne leen Moussa Fall il a des milliards déggu leen li ñu leen di wax de Moussa Fall léegi banque la yor maanaam li mu yor ci liquide ci koppar xam nga bi mu yorul koppar koppar ya daan manqué waxoon nañ leen ko mais guddi yi ñu toll ci Sénégal moom buy fay xobbet xobbet lay fay donc rapport interne gendarmerie bi génnagul nee nañu leen Amadou Ba à suivre Amadou Ba nee nañu leen am nañu loo xam ne war nañ koo ñëw def ci moom mais comme sénégalais dafa gawa faté manam sénégalais mom dang koy wax dara tay rek bu suba ñu indi benen contrefeu faté loko donc dañ koy génnee au moment opportun motax ngeen gis ni ñi wuñu ñu bayi leen ñuy tëbaka dal di céppi ka dof doflu mais ñom xam nañu ne ñun am nañu yo xamne bis bu génnee réew mi toj ils le savent Sénégal amna ay vrais journalistes de vrais journalistes Sénégal y a des vrais journalistes mais les comédiens, comédiens yi qui ci tableau yi ça c'est des comédiens ils font de la comédie comédie la def nga c'est de la comédie dañuy comédie moo fan gens concentrez les focalisez les les ci mobilisation ngène vous focaliser continuez continuer massifier continuer massifier de tey dof bobu mu ah vraiment li a APR ne am nañu 3 millions nangam de pare ay fen la xana mom fen yi ñu xam ñun lay confirmer ba ñun ñun ko xam ko ko sénégalais yi focaliser wu leen ci waa ji kii moo leen tere nelaw guddi ñu ne am na leneen luñ ci xam nag waaye mënuñoo wax lépp wax lépp xam xam lépp wax lépp baaxul xam lépp wax lépp baaxul kenn du xam lépp di wax lépp waa ji am na yu am na ay xew-xew de yu bari yu bees xam nañ ko ils le savent buñ leen ne rapport gendarmerie bi génn na ne leen amul problème allez regarder le rapport si vous allez voir ces deux noms Crépin Sambou ak Omar Diouf dem leen xooli rapport yi indil leen ma ñoom seen rapport yi ñu leen di wax yépp ngeen indil ñu Crépin Sambou ak Omar Diouf wax laa leen wax de waxu mag Moussa Fall tey du nelaw Moussa Fall bu li, lii day ne wa, mais li, lan qu'est-ce qui ne va pas je pensais que ce problème de rapport était derrière nous non non non général c'est pas derrière nous ça vient de commencer T'es yow xam nga li nek ci rapport bi gars yi bàyyi xel de mbir mi na Macky Sall Légui mu fi ne noise noise make noise make noise fa lañ jëm de fiñ jëm fa lañ jëm de na sénégalais taxaw leen xar seen tànk du bay de parce que Macky Sall n'est plus au contrôle il n'est plus au volant billahi ma leen wax li de Macky Sall yoratul nguru Sénégal nguru Sénégal ben nit moko yor fi mu toll ni c'est le général Moussa Fall général Moussa Fall

ne leen leen mais gars yi dégg naa rapport interne gendarmerie bi Crépin sambu ak Oumar Diouf ñoo ko def wax leen leen lool yéen ngeen di génne ay rapport ñu leen ni ni ma xam jàllo si ñene fii si ñene fële ngeen partagé ko ci réseau bi tas comme comme ay picc yu ñu ne leen tekk rek bàyyi leen leen ne leen tek rapport boobu kenn amu ko ci loxoom kenn amu ko focus kenn amu ko kenn xamu ñoom amul benn sénégalais ci biir Sénégal amul benn sénégalais ci biir Sénégal bula la mën a ne maa ngi nii yor naa rapport bi toog naa man xam naa ki ko yor xam naa ki ci man dara xam naa ko du ñoom de Macky Sall yor na ko mais il ne dort plus té comme ni ma leen ko waxé dang len dina tek ngén bàyyi len ñuy def seen yefu dof ñuy yu ñuy tëbaka dal ngén ne pat xam li ngén xam le rapport va sortir et d'autres rapports et d'autres informations vont sortir waxon na leen néna len Amadou Ba amna ñu ay information continuer ko togg continuer ko préparer ba ne ko pang ci kaw taabal bi bis buñ ko nee pang ci kaw taabal bi Amadou Ba ci boppam ñaar mooy mën a am mu renoncer à sa candidature wala de toute façon mu dem élection par force te du fa jëlee dara moom xam na loolu il le sait ñoom xam nañu fi ñu toog rapport interne gendarmerie boobu benn journaliste sénégalais bu mag Pape Alé Niang ba mu génnee mu ne rapport interne de la gendarmerie dinaa leen jox tuuti gâteau kañ Moussa dafa daw wutali Mermoz mu ne Macky Sall bu ñu jàppul waa ji tey masiba am ci dëkk bi bu ñu jàppul waa ji dëkk bi tàkk mu ne waa ji bu tëddiwul kaso tey àdduna tukki rapport bi génnul ba léegi c'est pas sorti yéen da xamul ne les sénégalais on est très avancé en information da ngeen yaakaar ne la saa yi ñu doon def dara rek bu sénégalais yi lu ne tëll rek ñu ne damm na voilà lépp ñu génnee ko mu jeex yépp jàll déedéet xaajul foofu gis nga am na information yoo xam ne yooyu dañ ko denc jàpp nee naa leen lii xam nga dama yëkkatiwaat beneen débat bu bees dama yëkëti débat bu bees nee naa leen rapport interne bu gendarmerie nationale bu Sénégal génnul kenn yoru ko te rapport bi ñaari nit ñoko def xam nga ko xamul dara amul lo yëk amul lo comprendre amul lo gis mëno wax lool Crépin sambu ak Omar Diouf fa ko def ku leen né rapport gendarmerie nangam nangam né leen ko won mako nga xol ñi def do fa gis ñaari tour yi parce que yoruñu ko ils n'ont pas le rapport de la gendarmerie amuñu rapport interne gendarmerie bi dañu ne ñun suñu réseau yi dañ ko di pour Macky Sall di saw suñu kaw di suñu kaw mu di saw kaw di et c'est fini non jamais on va se battre jusqu'au dernier souffle bu leen neexee takk leen ay radio ngén Tak Seni ay télé ngén dugal fi Yérim génné fële Yérim dégg naa tey Souleymane Jules Diop mu ñu on est en campagne de désinformation aduna bu yéwu bi monsieur Gil Diop on t'amène les images en temps réel on t'amène les documents en temps réel on vous amène les preuves les rapports écrits par les organisations internationaux vous nous parlez de désinformation donc, l'État américain, l'État la plus forte en investigation au niveau mondial, l'État qui fait toutes les investigations du monde, État américain, comme na boîte Chine comme li Inde Russie comme li honnêtement un rapport qui charge le gouvernement du Sénégal tu nous parles de campagne de désinformation dis-nous donc, ces photos des Sénégalais tués au Sénégal, qui sont des Sénégalais qui sont tués, manifestant bu yorul fetal yorul paaka yorul jaasi que tout des balles réelles zéro enquête 100 morts zéro enquête loolu mooy des informations 100 morts au Sénégal zéro enquête ñaata enquête ngeen il faut nous dire parce que dans tous les pays sérieux une personne Madame, l'âme d'une personne quitte ce monde, il y a une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Vous cardiaque cardiaques palu la là là, vous vous avez même des hommes de tenue qui sont morts sans enquête sans autopsie autopsie vous les avez falsifiés tous les autopsies au monde vous les avez falsifiées tous les enquêtes au monde, vous les avez falsifiées. Rapport yëpp falsifié Le rapport interne de la gendarmerie nationale du Sénégal. Commandité, commandé par général Jean-Baptiste Tine je commandé bi mbir yi jaxasoo Je ne wax leen ma lan fi xew ah, commandant ne waaw mu li may def pour leeral damay jël ñaari nit yu gën a xarañ Crépin Samb ak Oumar Diouf ngeen defal ma rapport ngeen defal ma enquête gaa yi def enquête internet bi yépp def enquête enquête enquête génnee rapport bi rapport bi bi mu génnee ñu teg ko ci loxo Macky Sall Macky Sall ba mu ne fang rapport bi liir ko mu ne ah mba ken yorul benen copie donc vous faites un rapport bi amul naka ñu s'il n'y a pas de rapport avec les milliers de gendarmes qui sont au Sénégal comment pourront-on choisir deux noms que vous avez jamais entendus Crépin Sambou et Oumar Diouf dans l'air dans l'air national air bi dem allez voir ils ont peur ils savent They Billahi Ils savent ce qui se passe. duñ ko génne tay de dañuy bàyyi ba ngeen toog ba ay élection ngeen di teug. jaarale lépp yoon ñu né rapport yi les ci kaw table bi sénégalais yi Moussa Fall day daw jaar daw jaar Mali gis nga rapport bobu bis bu sénégalais kenn ku nekk ci vous allez prendre arme contre le général Moussa Fall je vous avais dit que cet homme est dangereux. Il est parmi les hommes les plus dangereux de l'histoire du Sénégal. Affaire Ousmane Sonkobi. Affaire Ousmane Sonkobi. Moussa Fall. Dafa Bok Niko Du début à la fin. Ce gars-là, ni mu neke Kazamas. xam nga le j'ai dit il y a deux panthères noires xam nga Casamance waxoon naa leen Panther Moussa Fall panthères il y a un gendarme et il y a un journaliste ñaar ni biñu paré kenn ki daf ko yóbbu France kenn ki mu toxal ko Dakar ak mom bi mission am Casamance le rapport est bel et bien en vie mi ngi rapport bi Manam da fay dund dund yu neex ndax famu da fay yanj rapport bi fi rapport bi dafa melni ñu la c'est le diamant le plus important le diamant le plus cher du Sénégal le diamant bi gëna cher ci aduna bi ñu jël ko def ko ci caisse rapport Moussa Fall ba nga fofu le rapport de la gendarmerie Moussa Fall du nelaw il sait bien ce qui se passe parce que pour ñom wax di jeex na de nañu tej nañu ay nit c'est fini non non non non non c'est pas fini faut vous dise. Hein. billahi le rapport de la gendarmerie le rapport interne de la gendarmerie est bel et bien vivant te ko you're gonna see it and when you see it nee voir. bis voir. len ko voir. xam nga ñom dañu ne ñu ne yi bu sonal sen opposition bi ak journaliste yi nangam nangam lepp lu yor rek dañuy ko déedéet am nañu xarañ lool yeen ba ngeen jappé Ousmane Sonko da ngeen defee né seeni problème jeex da fay soga tambali tàmbali dafay soog a vos problèmes viennent juste de commencer seeni problème da fay soga tambali rek demul bay ñëw seeni problème goul step by step la très bien mon frère Zulaykha Sané c'est step by step boo nee fii dërëj ñuy tëb aka dal di xaru di xataraayu nga ne fële dërëj ñuy tëb di dal di xaru di xataraayu nga ne fële dërëj nee naa leen rapport bi keroog bi mu génnee Moussa Fall moo sol teniyam moo sol dàllam du ma ne teni sax dàllam daw wutali Mermoz mu ne Macky Sall Pape Alé Niang su ma ko tëjul tey rek damay démissionné

est-ce que de ngeen fi Sambou wala Didier Badi, ils n'ont pas fait le rapport Nous, avons fait une enquête nous, nous avons ñoo une enquête l'enquête n'est pas faite par ces gens Nous, naa encore une fois Crépin Sambou et Oumar Diouf ñoo def enquête Nous savons. xam ils le savent Crépin Sambou et Oumar Diouf ñoo def rapport ñoo def enquête gendarmerie bi génne rapport rapport bi bi mu génnee am ay nit yu bari yu fay xam ak a ximmi parce que Moussa Fall rapport boobu nee naa leen sénégalais yi xam nga man génn naa fi defal naa leen live presque une heure de temps ci Moussa Fall wax leen bon bi mu bon ne leen yaayam sax ba muy génn àddina daf ko woo Moussa liñ lay jiiñ ñi yëpp du yow yaay ji looloo ko génnee àddina moom Cheikh Yérim Caga sekk mi cheikh yérim ñaata ané la fi nek di tour di turbale sénégalais mais cheikh yérim bañu joggé ci mom digënté tas bi ak yaayam génn ñaana luñ ko kenn ñun ñu kenn dee luñu kenn dé ak yaayam génn adina nga xam gaay yi xaaliss alalu aduna lim leen jaral yaayu cheikh yérim génn adina lan moko tax misère ñii ñëpp ñoo ray yaay c'est ça la vérité L'olen leen yaakaar ne dañ koy génne yëpp mënuñu koo génne mënuñoo yor ganna yi yëpp Diko ko yéen ngeen ci jubilé buñu ñu ganna yi suba gis nga suba buñu ñu won rapport bi, Moussa Fall sénégalais wuti ay yar fekki ko euh kaam euh, génne ko rew mi moom ci bopam daw mi rapport bi bu rek mu xamné rapport bi génn na midi deux heures ci frontière u Mali bi la koy fekk damay ragal mu exilé wu ji Mali parce que Guinée Bissau tamit dégg naa foofu yëngu na. il a des problèmes le Sénégal ne marche pas Sénégal dou rew xam nga buñ koy wax du toutal Sénégal wala manki ko respect xoolal tay théâtre biñu def une télévision nationale may Maïmouna Ndour Faye taal telem dem toog ak Cheikh Yérim Seck ñuy théâtre mu melni Baye Ili ak euh, euh, euh, soxna ci dépenses

Covid ba mu laaj fi ben waay question mu ne ko jaaykatu shawarma bi xaritu Amadou Sall bi 18 milliards ak 17 milliards nu mu demee mu ne ko boma ma ko laajatee ma porter la plainte un journaliste qui a des preuves mu dellu ginnaaw ken déggatu parce que après ça Cheikh Yérim bi mu génnee def bruit dañ ko jox lu takku mu noppi Cheikh Yérim bi mu laalee famille Fares bi dañ ko jox lu takku dañ ko ñëk buubu yóbbu kasso dem négocier ak moom jox ko lu takku ne ko génnal la paré gas yi mu ne ko ok mu ne légui je suis dans votre camp comme ni Pape Ndiaye Walf bëggoon def non non lañu def Cheikh mom il a réussi son coup parce que mom ben benn télé momuko donc il va dans les télés il fait son deal avec Maïmouna Ndour mu am lu mu joxé ñu invité ko émission vous savez que le Sénégal le Sénégal aujourd'hui il y a tous les émissions c'est des émissions commandées dafa am émission commandée ak article commandé tay bo commandé article ñu bind la ko suba ñu postel la bo commandé émission ñu tegal la émission ñu wax la njëgli nga nous ñu tegal la émission bi nga wax loolu mooy Cheikh Yérim ak may a Ndour dañu bëgg attention duñu leen may attention de bu leen may attention suba bu ñu yeewoo Sénégal yëpp dinañu xam ne rapport bi mi ngi dund ba léegi ndax rapport bi tur yi ma leen jox amul beneen rapport boo leen di génnee bu ko yar ñoom xam nañ ko ils le liñ leen di won noonu rapport rek ñu jël benn affaire sànni ko ci réseau yi pour gars Ousmane Sonko avait dit à Adji Ousmane Sonko mooy enquête ma xam non rapport interne bu gendarmerie bi chargé Moussa Fall masul c'est jamais sorti kenn masu genne Quel kenn yoru ko ci loxoom kenn du ko génne ka ko mën a génne man xam naa xam naa billaay wallaay tallaay la si xam na te bis bu ko génnee dingeen xam ne rapport génn na mais caaxaane nañ ko bàyyi continuer leen mobiliser on ñun ñoo nekk ci kaw fàttaleku leen ne on est en contrôle fi mu toll nii on est au ñun ñoo nekk au volant ils le savent mënuñoo yàkkamti nag parce que liggéey bi àndul ak parax-parax xam nga boo leen déggee tur yi ma leen jox xam nga nit bu xamul rapport existé na bu xamul ne rapport bi mës ta génn manu leen jox tur man xam naa ne rapport bi mës ta génn xam naa kaka yor xam naa kaka mën a génnee xam naa ka mën Sénégal Crépin Sambou et Omar Diouf point falaa mën a yem leen xel kenn bu mu leen nelawloo restons focus ñu concentré te ñu xam ne waa ji incha allahu rabbi 2024 yagatul ay fan la rek parce qu'on est déjà en décembre il faut savoir 4 décembre l'idée pour ñu yegg 2024 c'est 20 et quelques jours pratiquement janvier février 2024 inshallah allahu rabbi Qui Qui? ñëw qui dañ ko Qui téré Qui? ñom ki dañ ko mën a Qui? ki qui ñom dañu man dara ci qui japp nit jaay ko doole tej ko kasso ci ay fen lolu yomb na sàcc ndënd yomb na waaye fa nga koy tëggee moo jafe gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen na ngeen focus ngeen continuer taxawaay bi taxawaay bi dëgër na te baax na te dinañu continuer débat yi comme niñ koy defee toujours nag incha allahu rabbi xam leen ne massification lañ leen laaj bu extraordinaire massification bu extraordinaire diaspora bi comme bitim biir réew di jël téléphone di wo sen mbokk di len yé comme ni ngeen def ni ci parrainage bi moom la laaj tey émission bi Ismaïla Madior Fall mo di publicité émission wu Cheikh Yérim ak Maymouna Ismaïla Madior Fall le ministre des affaires étrangères du Sénégal dem Twitter di ne waaw Cheikh Yérim sekk tey dina am émission ak may Maïmouna Ndour xam nga ñoo ñu jaaxle nañu ak publicité boobu yëpp ba léegi bu subaa boo leen yeewoo ngeen xool émission yooyu di ngeen fekk ne ñun ñoo leen ëpp visibilité parce que yi ñuy déglu du leen déglu parce que sénégalais yi gëmatuñu leen. sénégalais yi gëmatuñu leen les sénégalais na croient plus à ces charognards. Rien moo xam ne sérieuxité amatu fa suñu ministre de la justice moo gën a un fayda king kong amul benn fulla nii fayda xamul boppam Aïssata Tall sal. léegi nga ñëw ne Ismaïla Madior mu ne rombal abal comment un ministre des affaires étrangères du Sénégal peut publiciter une émission de télévision qui va avoir lieu qui vient pour manipuler les Sénégalais dama leen di laaj Sénégalais élection bu reporter. ku muy ñoom lay yéexal seen dem kaso ñun loolu lu ci suñu yoon ñun ay élection yu ñu reporté ñun ñu ay élection yu ñu reporté ñun élection benn rek lañ ci xam mooy bii ñëw février incha allahu rabbi ñu duma leen ba seen arrière tàng Macky Sall dafa mën a reporté <laughs> Macky Sall nelawatul <laughs> Macky Sall nelawatul il ne dort plus Macky sonn na ci yéen bu yàggee tuuti léegi mu fi taw léegi ngeen dégg fi Macky Sall dem ba France ne je ne vais plus rentrer make noise make noise make noise kaay maa ngi leen di sant leen gërëm wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu